mbirum Ousmane Sonko li ñu ko teg jaaruwut naqarlu nan ko ñaawlu nan ko te ñi ngi xeex lépp lu ñu man pour ñu dindi saayir ak si baat parce que nag lu ëpp tuuru ndax ñii koy def defuñu ko kenn ci réew malgré que jàppuñu ko waaye daanaka li ñu ko defal jàpp yow ndax liy firnde bi man mii di wax yow bi ma jokkoo moom ni ko dinaa la yónnee xaru tabaski damaa demaan Antoine Diome autorisation pour yóbbu ko mais tontuuma sax xañ nañ ko tey li nga xamante moom la waroon def muy dem julli ji ak njabootam depuis bi nga xamante na a dem doo kon maa ngi ñaan état Sénégal mu jël ay responsable comme moom nee na état bi nee na ci kaddu ministre de la justice Ousmane Sonko am na condamnation deux cent ferme waaye nee na am na ñu bari ñu am ay condamnation ferme yoo xam kenn jël kon mooy wane Ousmane Sonko kenn du ko jàpp kenn parce que am na ñeneen ñoo ne am nañ condamnation ferme di dox ci biir dëkk bi ministre de la justice démb ci commission bi leeral na ko nee na bu fekkente ni maanaam justice pare na procureur de la république mooy apprécier bu ñu ko jàppee lenn mën naa moo tax kenn du ko jàpp maa ngi dalal xelu askan bi yëpp ni leen Ousmane Sonko kenn du ko jàpp waaye ñii ñu koy def aussi tegul si yoon parce nag programme Macky Sall mu la mu doon wax rek lay lay mooy man de dinaa dem waaye dinaa ko yóbbaale kon yóbbaale googu moom la bëgg a def waaye ñu ñëpp nañu taxaw jom ak population bi lànk loolu parce que nag ñun kenn duñu tànnal kan moo ñu jiite ëllëg lu du sénégalais yi te sénégalais yi ku ne xam na ni Ousmane Sonko dugg na seen xol te ndaw la am na procès procès boobu mu yore ñi ko si topp ko si duñu seetaan ñoom ak ñun ñi nga xamante ni dañuy xeex pour dëgg ak démocratie ñuy baare projet boobu noonu. moo tax man en tant que candidat soppi ak doomu daara dinaa def tout tout di dindi li nga xam mooy duukaleem boobu noonu mu def soxla te incha allah dana nekk candidat 2024 bu neexee yàlla moom waaye bu nekk candidat maa koy gañ parce man la nit ñi gën a bëgg.